Sénégalaises, Sénégalais, nos chers compatriotes de l'intérieur du pays et de la diaspora, je viens de parcourir une partie importante de notre territoire. J'ai été dans les villages reculés, dans les communes éloignées, dans les départements et les régions dites périphériques. J'ai vu et entendu des milliers de nos compatriotes, hommes, femmes et enfants. C'est le lieu de remercier celles et ceux qui m'ont accompagné durant tout ce périple, celles et ceux qui m'ont accueilli là où je suis allé, celles et ceux qui m'ont soutenu et appuyé de leurs idées, appuyé de leurs expériences, ainsi que les nombreux qui nous ont donné de leurs moyens pour nous permettre de partir aussi loin. Je vous dis ma reconnaissance et mon infinie gratitude. Dans le Sénégal des profondeurs, j'ai senti et ressenti l'ardente volonté de changement de notre peuple. J'ai vu leur détermination à faire face et à vaincre les obstacles pour se hisser vers le changement et lever les défis qui obstruent leur perspective d'évolution et de vie meilleure. J'ai constaté avec satisfaction et espoir leur engagement ferme à réécrire le narratif du Sénégal et à changer durablement et définitivement la trajectoire de notre pays. J'ai vu des hommes et des femmes décidés, déterminés à être des acteurs de leur propre vie et à être des acteurs du changement qu'ils veulent, ayant pour credo être l'exemple du changement souhaité. Chers compatriotes, notre pays vit une situation politique sans précédent Jadis considéré comme la vitrine démocratique africaine, le Sénégal a vu ces dernières années, ces derniers mois en particulier, les piliers solides de sa démocratie être démantelés les uns après les autres et secouant gravement notre infrastructure démocratique et républicaine, laissant le pays dans une situation de vulnérabilité, de faiblesse et d'anomie sans précédent dans notre histoire. Cela a fait presque trembler beaucoup de Sénégalais, tant on a fait vaciller nos institutions. Face à toutes ces incertitudes et aux menaces multiformes auxquelles notre pays fait face, devant la dérégulation du jeu politique, le brouillage des repères et la faillite de la morale en politique, j'ai fait le choix de ne céder ni à la facilité des positionnements individuels, ni aux calculs opportunistes et encore moins au déshonneur. En politique, comme dans ma vie tout court, je m'attache à agir toujours selon un référentiel éthique solide et rigoureux auquel je m'interdis de déroger et de me soustraire. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à garder cette posture jusqu'à la fin de ma vie, car c'est la seule chose que je voudrais léguer à ma postérité si je quittais ce monde un jour. Il y a quelques mois en arrière, j'ai annoncé publiquement que je renonçais à ma propre candidature pour soutenir celle de mon ami et allié le président Ousmane Sonko, s'il venait à être validé. Mais face à un pouvoir qui était prêt à tout pour empêcher cette candidature, par tous les moyens, y compris les plus immoraux et les plus illégaux possibles, nous avons fait preuve, lui et moi, et tous ceux qui sont avec nous, d'une très grande ingéniosité et d'une intelligence stratégique et politique qui nous a amenés aujourd'hui là où nous sommes. Nous avons su identifier les pièges pour les déjouer. Nous avons su poser les actes fondateurs pour aller de l'avant et faire face au camp adverse. Ousmane Sonko et moi, nous nous sommes parlés. Nous nous parlions déjà depuis un très bon moment. Même pendant qu'il était dans les liens de la détention, nous échangions. Cette semaine, nous avons encore échangé par deux fois. Nous avons parlé sur les enjeux, nous avons parlé sur le projet, nous avons parlé sur notre stratégie et nous avons parlé sur le timing pour dérouler cette stratégie et lui donner une issue victorieuse. Nos tête-à-tête ont été sincères, comme toujours, ont été justes, comme toujours, et n'ont eu que pour le Sénégal comme motivation et ayant en balise l'intérêt général et le drapeau de notre pays. Avoir plusieurs candidats à l'élection présidentielle issus de notre pôle était porter et promouvoir ce projet que nous avons en partage tout au long de la campagne était aussi une ligne de défense, notre principale ligne de défense pour nous assurer que celui qui incarnait le projet et qui, au moment où il était choisi, était dans les liens de la détention est donc vulnérable, qu'il pourrait un jour continuer et porter le projet jusqu'à sa fin. Pour nous, porter ce projet et le promouvoir pour une victoire le 24 mars 2024, c'est aujourd'hui un, un, un impératif qui mérite tous les sacrifices et nous sommes déjà nombreux à en avoir consenti beaucoup. Ousmane Sonko fait sa part de sacrifice. Bassirou Diomaye Faye a aussi fait le sien. de nombreux Sénégalais et de nombreux Sénégalais ont été arrêtés injustement, emprisonnés illégalement, tenus dans les liens de la détention dans des conditions difficiles. De nombreux autres de nos concitoyens ont été blessés. Beaucoup ont laissé leur vie dans ce combat que nous menons depuis quelques années. C'est le lieu pour moi de m'incliner devant leur mémoire, de saluer leur, leur lutte et de prier Dieu qui les accueille dans son paradis. Je crois en ce projet. J'y ai travaillé depuis de nombreuses années. En 2019 déjà, nous étions parmi les concepteurs de ce projet et ceux qui l'ont écrit dans le cadre de la coalition Sonko Président. Depuis lors, lui et moi et tous les autres avons continué à y travailler parce que nous y croyons, puisque ce projet est aussi le nôtre, parce que autant nous avons travaillé dans le projet de Sonko Président, autant des années auparavant, Ousmane Sonko était aussi avec nous lorsque nous les documents de la plateforme politique Avenir Sénégal bi ñu bëgg et ça c'était déjà depuis 2015 nos destins sont donc liés je crois que tous les Sénégalais le savent pour le bien de notre pays incha allah ce projet est sans doute le meilleur des projets j'ai lu et j'ai compris j'ai vu et j'ai analysé et exploité l'ensemble des projets qui sont soumis par les autres candidats à l'élection présidentielle je crois pouvoir dire qu'aucun n'égale projet patriotique que nous portons et que nous espérons porter au pouvoir au soir du 24 mars 2024. projet postule le souverainisme assumé. Il postule la refondation de nos institutions, mais la refondation rigoureuse. Ce projet postule patriotisme également assumé et ce projet accepte ou promeut un panafricanisme ce sont les quatre grands piliers que vous y retrouverez. Ils sont exploités ou éclatés à, à, à travers différentes autres postures ou composantes du projet. Il est ambitieux pour notre pays. Il est adapté à notre économie politique. Il est adapté ou conforme aux aspirations du peuple sénégalais, des villes comme des villages, des Sénégalais de l'intérieur comme de la diaspora. Un tel projet ne saurait être bâti autour d'une personne il doit être l'œuvre d'une équipe, de sa conception à sa réalisation. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes tous regroupés autour du projet, pour le porter et le promouvoir en effaçant nos intérêts personnels et nos individualités. Ceux qui ne le comprennent pas sont simplement ceux qui peut-être sont simples d'esprit ou mettent en avant leurs intérêts personnels, les intérêts partisans ou l'obsession de l'accès au pouvoir. Le moment est donc venu pour moi de parachever mon engagement pour faire offrir aux Sénégalais l'occasion de produire un changement durable et définitif afin d'abréger la souffrance profonde que les Sénégalais vivent, surtout à l'intérieur du pays, que j'ai pu voir, sentir, observer et vivre avec eux tout au long des périples que j'y ai menés tout au long de cette campagne. Je me suis toujours engagé à mettre l'intérêt général au-dessus de mes propres et je ne conçois aucun succès en politique, aucune réussite, aucune réalisation au-delà de ce que j'estime être l'intérêt général et l'intérêt collectif. L'élection du 24 mars 2024 ne rentre pas dans la normalité et tous nos le savent. C'est une élection exceptionnelle à tout point de vue. On ne peut donc pas l'aborder avec des instruments et une posture normale et à situation exceptionnelle, mesures et postures exceptionnelles. C'est pourquoi, après avoir consulté ma famille, les militants et sympathisants qui m'accompagnent en politique, mes amis et proches, celles et ceux qui m'aiment et qui me veulent du bien, mes alliés et partisans et tous ceux qui sont avec nous, j'appelle tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont compris et qui étaient prêts à voter pour moi je les appelle à porter leur vote et leur voix sur le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l'élire dès le premier tour au soir du 24 février mars 2024. Je lui souhaite je lui souhaite une excellente victoire. Je lui souhaite une victoire sans appel, sans bavure, sans contestation possible. au soir du 24 mars 2024. En conséquence de quoi, je retire donc ma candidature à l'élection afin d'éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet et qu'on se regroupe et pour faire triompher notre projet dès le premier tour, Inch'Allah. Je connais Bassirou Diomaye Diahar Faye. Je le sais juste. Je je le sais intelligent et je le sais rigoureux. Bassirou est un homme respectueux que j'ai appris à connaître. J'ai travaillé avec lui autour de ce projet depuis 2019 et autour de toutes les autres initiatives que nous avons partagées. C'est un garçon extrêmement brillant, il est rigoureux, il est sincère, il est honnête et c'est ce qu'on attend d'un chef. Le reste, ce n'est pas l'affaire du chef, c'est l'affaire d'une équipe. Le chef, on a besoin qu'il ait les attributs dont je viens de parler. Mais tout le reste, c'est l'affaire d'une équipe. Et nous avons une équipe. Nous avons une équipe de 18 millions de Sénégalais, puisque nous entendons faire de ces 18 millions de Sénégalais des acteurs de leur propre développement, des protagonistes du changement, des protagonistes et constructeurs du Sénégal que et que nous voulons amorcer dès le 24 mars 2024, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Mais ce projet, c'est aussi les centaines et les centaines de Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, des hommes et femmes compétents, intègres et patriotes, qui excellent dans leur domaine et qui déjà pour et autour de ce projet et qui seront mobilisés pour être les principaux constructeurs du développement de notre pays et autour de l'équipe gouvernante autour du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, autour de tous les alliés qui travailleront à la réussite de ce projet. Je finis donc en remerciant l'équipe qui m'a accompagné sur le terrain partout où je suis allé. L'équipe d'Avenir Sénégal bi ñu bëgg, je vous prie, s'il vous plaît, de, de les féliciter et de les encourager. Je remercie le peuple sénégalais pour le respect et la bienveillance avec lesquels il me tient. Je ne mesurais pas l'étendue de cet amour que beaucoup de nos compatriotes portent pour moi. J'ai été très touché, partout où on est allé, de les voir et entendre ces hommes et ces femmes qui arrivaient. Peut-être par la magie des réseaux sociaux, par la magie des journalistes que vous êtes, par le partage de la diffusion de l'information, partout où on est passé, ces Sénégalais sont sortis pour nous dire « Docteur Cheikh Diagne, nous vous connaissons, nous vous suivons, nous vous apprécions Nous avons besoin d'éthique dans la politique. Nous avons besoin de morale dans la politique. Nous avons besoin de gens qui y croient, qui ne se trahissent pas, qui, la, qui respectent la parole donnée et qui ne mettent que le Sénégal en bandoulière et que, qui considèrent notre pays comme leur unique et seul objectif et balise. Je remercie ces Sénégalaises et Sénégalais. Je prie Allah pour qu'il continue de veiller sur notre pays. Nous avons un pays, nous avons un grand peuple Si nu nu donnons la main et nous travaillons dans la paix et l'amour mutuel et le respect réciproque, nous pourrons conduire notre pays à des lendemains extrêmement favorables pour tout le monde. Je remercie tout le monde. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Vive le Sénégal. Je vous remercie, ma def ko ma def ko ci wolof xam naa ni xaar bi yàgg na ñu gàttal ko mbokki senegal senegal yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew seen xarit seen mbokk seen doomu ndey Cheikh Tidiane Dièye mooy waxtaan ak yéen jamono ji dafa am solo ndax fii may waxee ak yéen démb ci suba maa ngi yeewoo Bakel laata Bakel Linguère laa yeewoo laata Linguère Ndar demoon ba Waalo jóge foofu bi ma jógee Bakel dem Kidira dem Goudiri dem Tambacounda dem Sinthiou Malem fanaan kawlax tey laa fa xëyee daanaka ci tisbaar laa fa jóge yegg si fii ñëw ci saal bi pour waxtaan ak mbokki senegal donc dugg naa ci réew mi waxtaan naa ak waa réew mi seeti naa leen fa ñu nekk ndax ni ma doon defee sama caravane dama bàyyi caravane bu mag bi nga xam ne mooy bu Bassirou Diomaye Diakhar ànd ak Ousmane Sonko ñu dem ci dëkk yu mag yi ak axe yu mag yi ndax caravane bu mag la man ma jël caravane bu gën a ndaw oto yi barewuñu nit ñi barewuñu ndax mooy gën a souple pour mën a dugg fi nga war a dugg fépp ndax du rek sénégalais yi ci dëkk yu mag yi la ñu waroon déglu wala la waroon wax ak ñoom mais fépp fu sénégalais nekk da nga war a déglu message bi dégg message bi xam message bi topp ko ngir buñ ca yeggee nga mën koo tànn tànn li nga xam ne li nga te boo koy tànn nga xam li ngay tànn lan la loolu nag bi ma ko defee fu ne dem naa fa gis naa lu nekk may gërëm mbokk yi nga xam ne dalal nañ ñu may gërëm mbokk yi nga xam ne euh, gunge nañ ñu may gërëm mbokk yi nga xam ne jàppale nañu ci lii ñu doon def ci seeni i xam-xam ak seeni xalaat may gërëm ñi nga xam ne yëkkati nañ seen alal ci nu mu mën a toll dimbale ñu ko pour ñu mën a def boobu liggéey mbokk yi réew mii nga xam ni Sénégal la dañu cee toll ci jamono joo xam ni ma mësuñoo dund lii ñu dund ci wàllu politique situation politique bii ñuy dund moom la ñuy wax ci tubaab situation bu exceptionnelle ndax dara normalul ci ci élection yi ñu jëm élection bi normalul candidature yi normalul processus bi normalul datu élection bi normalul jamono jii ñu koy def ci weeru koor te mënoon koo def depuis le 25 février jamono ji normalul am réew nag buy dund dund boo xam ni li fa xew masu faa xew sénégalais yi sonn ci tàyyi ci ay nit ñu jàpp leen ci tëj leen ci kaso yi lu yàgg ñu bàyyi seen njaboot te defuñu waxuñu ay nit ñu gaañ leen ci ba ñu am ay laago te defuñu waxuñu ay nit ñàkk ci seen bakkan ma leen di ñaanal yàlla mu xare leen aljana réew bu demee ba toll foofu nit ku fa nekk te am xel mënuloo jàpp ni ci lu normal rek ngay continuer di dox mënuloo jàpp ni li ngay xalaat lépp day nekk li ñu yàgg xalaat ni noonu la nit war a doxee dangay ngay daal di am ci situation yoo xam ne day exceptionnel moo tax ngay teg act yoo xam ni act yu exceptionnel la ndax mooy méngoo ak jamono ji mbokk yi loolu moo tax bi nga xamee ni seet nañ ko waxtaanee ko man ak président Ousmane Sonko ndax bi nga xamee ni tànn na Bassirou Diomaye Diakhar fay ni mooy candidat bi porté projet bi yàlla def ci suñuy pexe ñu amoon ñaari candidat yeneen muy mën ak doyen Habib Sy ñu jàll nekk ay candidat ñu xam ni bu ñu génnee suñu candidature bàyyi ko amaana candidat bi nga xam ne moo nekk kaso dara dal ko fa wala ñu gàntal ko su ko defee projet bi dootul am benn candidat bu koy taxawal kon suñu responsabilité puisque projet bi moo ñu tax di liggéey ànd ci encadrer jàppale bu ñu dem campagne yu battre campagne pour wax ci projet boobu nit nit ñi man koo dégg loolu mooy li nga xam ni loolu la ñu doon suñu taxawaay muy taxawaayu ngëm-ngëm muy taxawaay boo xam ni dañu ko tibbe ci suñu xol parce que bi ñu duggee ci politique ba tey musuñu ci def mbaa ñu wax ci loo xam ni li méngoowul ak suñu conscience ak suñu éthique dama yàgg wax ni bu dee politique ndombay tànk rek lay takkal nit te balaa mu la ko takkal nga wàññi bàyyi sa ngor ak sa jom kon yàlla bu ma ko takkal parce que jaralu ko ndax maa ngi sant yàlla yàlla am na lu ma may loo xam ni xeebu ma ko bu ma duggee ci politique servir réew mi moo tax servir intérêt général te lépp lu ma am mu war a yem ci man te mbooloo mi bokkuñu ci loolu soxlaw ma ko ci politique loolu nag bu ma ci demee gis ñi ci sacrifié wu muy ko mel ni Ousmane Sonko di suñu mbokk ñu jàpp ko tëj ko di Bassirou ñu jàpp ko tëj ko ak ñu ñu àndal ñëpp jàpp tëj leen sacrifice boobu ñun ñi nga xam ne demuñu ba yegg foofu beneen sacrifice bu ñu mën a def pour lii sotti bu ñu ci yeggee rek war nañu koo def te waruñu teef benn calcul loolu tax na mbokk yi gannaaw ba ma demee waxtaan ak ñi ma war a waxtaanal ñëpp ñi ma war a diisool ñëpp rawatina ci président Ousmane Sonko mi nga xam ne démb ci guddi rek waxtaan nañu gisee rawatina ñi ñi nekk suñu plateforme politique avenir Sénégal bu ñu bëgg te di ma gunge te ñi ëpp ci ñoom lii may def ñoom sax ñoo ma ko yàgg digal ni ma mooy li gën ci réew mi ak mbokk yeeg am di jàmm yëpp yi nga xam ne ñu ngi suivre ñoom ñëpp gannaaw ba ma waxtaanee ñoom dama décidé incha allah élection yii ñu jëm muy le 24 mars 2024 ma woote képp ku ma toppoon képp ku ma déglu képp ku ma comprendre képp ku lu dégg li may wax te ma doy la nga jàpp ni fu ma féete du du am lu ñàkk fayda fu ma féete du am lu doyadi fu ma féete du am lu xeebu ku ma topp ci ginnaawam jàppale ko war ngeen mën a gëm ni kooku am na lu ma gis ci moom lu ma doy ba man koo def kon nag maa ngi ñaan képp koo xam ne dégg nga ma déglu nga ma te nga jàpp ni sénégalais yi sonn nañ ci coono boo xam ni coono bi lu mu gën a gaaw a jeex rek moo gën nga ànd ak man ñu choisir tànn et voter Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars bi ñu jël incha allah ngir ñu am possibilité voter ko mu gagné dès le premier tour loolu nag tax na sama candidature donc du ma ko continuer bu leen ma voter man Bassirou Diomaye jaaxaar fay la ñuy voter mooy li ma désidé mooy li ma jàpp ni moom moo gën ci réew mi mooy li ma jàpp ni moo gën ci suñu projet bi ndax lépp lu ñu mën a def pour mbir mi gaaw bisu élection bi li xale yi di wax bu ñu xëddee vote ji bu ñu ndogoo jibile ngir xale yi bañ koo def incha allah ndax loolu mooy lu gën ci Sénégal mbokk yi nag dinaa wax benn wala ñaari baat ci Bassirou Diomaye jaaxaar fay président Ousmane Sonko jarul ma ciy wax xam ngeen sama digganteeg moom. koo xam ne bi mu génneeg léegi ñaari yoon man ak moom tëju nañu waxtaan en tête à ni ñuy wax ci ci ci tubaab xam ngeen kon suñu relation fi mu yegg waaye Bassirou Diomaye jaaxaar fay dama ko bëgg wax ci moom ndax boo tànnee nit di nga wax li tax nga tànn ko lan la Diomaye jaaxaar fay liggéey naa ak moom ànd nañu liggéey ci projet bi ànd nañu sur le terrain jànkoonte nañu ak situation yu jafe au plan politique depuis de nombreuses années ma xam ci moom ku am rigueur intellectuelle ku ku xelam màcc man damay nawe noonu nit ku ma xam-xam nga ni fi ma teg xam-xam teguma fa leneen xam naa ni ku am xam-xam la ku am taxawaay la ku respecté doomu aadama la mën naa ko ko firndeel ku mën a liggéey la te li ma soxla itam ci nit kuy liggéey mooy ku am rigueur rigueur dafa baax ci mu njiit moo tax yooyu yëpp bu bokkee ci moom euh, euh, dajaloo ci loolu mooy li ñuy doyee leader chef mooy nga am yërmande ci askan wi am xam-xam booy comprendre problème yi ak di ko analyser am yéene bu yaatoo yaatu ci sam réew mën a fédérer déglu ay nit pour mën a ànd ak ñoom liggéey mën a am rigueur boo xam ne bu ñu décider doo bàyyi kenn mu def lu ko neex di nga teg ñépp ci yoon loolu leader bi mu bi mu doon xam naa ni am na ko seedeel naa ko li ci des nag du wàllu leader wàllu équipe la te dama gëm ni lii ñu yëkkati muy projet bi du du mbir mu benn nit rek mën a yëkkati projet ñépp koy bokk projet boobu 18 millions sénégalais yépp ci la ñuy bokk bu yàlla defee ba mu sotti bépp sénégalais acteur ngay doon ci réew mi protagoniste mooy koo xam ni lépp loolu la soxal nga am ci wàll da ngay bokk ci ñi koy doxal di ko def incha allah am na ay centaines et des milliers de sénégalais yu ne fii ci biir réew mi ak ci bitim réew ci diaspora am xam-xam lool ci seen i domaine ñépp danañu fexe indi leen autour du projet ñu liggéey pour transformer définitivement réew mi nga xam ne mooy Sénégal loolu mbokk yi mooy li nga xam ne façon nañ ko yéene indil leen ko ngeen nga xamee ko noonu def nañu suñu wàll ngëm-ngëm moo taxoon ñu ñëw fii suqali réew mi ak sauver ko moo taxoon ñu ñëw fii yàlla def na yegg si nañu foo xam ni fii dañu war a def appel pour que ñëpp ñu bokk ak ñun ànd ak ñun ci projet bii nga xam ne moom la ñu yëkkati benn voix duñu ko perdre au premier tour may ñaanal ñëpp ñu jël bulletin Bassirou Diomaye Diakhar Faye dugal ko ci enveloppe yi ñu voteel ko pour que ñu jël gagné ñu ñu ñu gérer réew mi di président wala di way leneen loolu yàlla ba mu ko tànnee yàgg na yàlla pare na moom rek mooy dogal ku leen ne woon lii dinañ ko dund tey kenn du ko gëm yàlla moo ko defoon ba fa ñu ko fekkeewul kon nañu nangu ndogalam ñu xam ne bu ñu àndee joxante loxo incha allah réew mi mën nañ ko